asalaamaaleykum Pape Djibril Fall man le professeur Amsatou Sao Sidibé essayé naa vous Fanny fan yi un message je n'y arrive pas je vais laisser un autre message on s'est parlé nous avons parlé d'éthique d'engagement Nous avons parlé d'engagement, sa engagement doo ci dara et que bu ñuy wax éthique xëy na yow ci ñu gën a am éthique nga bokk mais li ma remarqué mooy dama wax ak yow dans le cadre na coalition ba nga d'accord ba jël engagement ne dinaa nekk ci liste yi te samay nit évidemment coalition leen dinañu nekk ci list yi nga laaj ma ndax am naa ay parrain manila waw amna ay parrain Ganima, ne da nga bëggoon ma être en relation avec euh, docteur C, parce que moom moo doon co coordonné na ak moom ba pare euh, boole ko ak samay nit euh, même bu dee benn parrain jox naa la ko astama jox des milliers de parrains léegi nag li ma seetlu ne dafa am xëy na lu tax courage wax ma lan moo xew gisuma boobu courage courage wax ma lan moo xew te dama trouver ni attitude bi man daf ma décevoir parce que attitude de manque de respect notoire vis-à-vis de moi vis-à-vis des personnes euh, qui sont avec moi en toute générosité et en croyance de la fiabilité de ce que tu nous as dit des personnes qui ont travaillé d'arrache-pied nous mobiliser wu les parrainages bind les parrainages qu'il fallait aussi ajouter man ci sama bopp parrainages parrainage yi nga xam ni dama ko amoon euh, par le biais d'un lien versé ko di dolli di dolli di dolli tey li ma remarqué ni mooy nanguwuloo wax ak man xëy na dafa am lu tax nanguwuloo wax ak man même bu dee benn parrain encore une fois jox naa la ko waxatumaak des milliers de parents. li ma lay jëkk ñaan mooy étant donné que da nga garder mutisme je suis sûr que la nga waroon la nga diggee woon defoo nga ma samay dama la ko dama la ko wax ci kalamu yàlla mani boo gëmee suñu ma samay dama ci sonn def ci bu déplacement à n'en plus finir def ci fatigue physique def ci fatigue intellectuelle sama équipe sonn fanaan ak sa équipe peut-être deux fois alors réagir, voir ce qu'il en est sous durant ces 24 heures qui suivent je vais passer à la vitesse supérieure Waouh, je vais passer à la vitesse supérieure je vais utiliser d'autres voies et moyens parce que me le joindre je passerai par d'autres voies et moyens en tout cas ma déception elle est très forte, très très forte. La déception de l'équipe qui était avec moi, de la elle est très forte. Et la déception de façon générale sera très très forte. Voilà ce que En le regrettant, dans ma l'éthique serait au centre des préoccupations. Parce que troisième voie, ken du ko tuddu su éthique Amoul, andou ak force de l'engagement Amoul, andou ak force de la parole donnée mon vieux le départ sans mauvais voilà donc j'attends